as asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 12 novembre 2020 ñëw ak na a dafa xëy jàpp ne daal xëccoo ci ay dat moom dana taxaw la ko waral nag jàpp na ne ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue Luc Nicolaï ak ka nga xam ne moom moom te Pape Abdou Fall wala ba ci Pape Thialis Faye daal jàpp na ne xëccoom dat moom dana am ci seen diggante ndax la ko waral muy Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye numéro 2 bomba Bombardier Siteu a Sow Tapha Tine ka nga xam ne nii moom moo di Boy Niang mel ni kon daal fi nekk nii moom njaw dana wéy di des aw xambin foofa ndax nag xëccoo dat moom fi nekk nii faw daal mu am ndax combat ya nga xam ne nii ñoom ñoo taxaw dal na nekk combat yoo xam ne daal la te itam am na yoo xam ñoo xam ne taxawaloon seen ay combat mel ni kon mbir moom itam nar naa nekk mbir moo xam ne daal ah des na ci utum ab boog a weneenu yoon maanaam jéem a la nga xam ne moom moo waaye faw solution am wala bu loolu amul moom xëccoo ba nar naa metti lool lool ci wàllum dat ya yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw wax nu ko keneen a ngi nii koo xam ne nii moom ña muy xëccool wala ña mu bëgg a xëcc bëreek moom ñenn la muy pakala bu mbuur Ñang la wax bu yoof Moussa Ndoy bu yaraax ak amaneex bu tëngéej jàpp na ne ñetti adversaires yi daal ku ci nekk daal boo amee aw fit takk ko nga ñëw jàmmarloog moom pakala ngeen defante bëre ba mu saf-saf loolu yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu ko wax mel ni ki tak équipe bu CNG bu bees bi moom soo bëggee dégg-dëgg daa mel ne am na ay doléances yoo xam ne daal mbër yi ñu ngi leen commencé di leen ko tegal yëglikaay bi xëy tey wañu ci xëtam mu njëkk Tidiane Faye ak ka nga xam ne moom moo di Alioune Seye numéro 2 ba tey CNG bu bees boobu moom ki nga xam ne nii moom a moo di ki nga xam ne moom moo di Khalifa Niang bu Tay Singa nekk président ba leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom xëy na di wax wala boog ñu xëy mel ni ñuy tontu ka nga xam ne moom mooy xalifa ñaa muy waa Kaolack ka nga xam ne fa la Bira Sène dëkk ñoom nag la ñu jàpp daal jàpp nañ ne kii di Bira Sène moom loo ci mën a dégg am nañ ci moom yaakaar te jàpp nañ ne làmb ji dana ko doxal ndax nag du ci gan te nekku ci ab wàcc bees lu mu xam la te itam nag yàgg naa yëngutu ci mbirum ay association ay ASC ay doxal ay gox yu mel ni ki noonu moo tax waa Saloum moom jàpp nañ ne seen doom ji daal fi ñu bëgg làmb yegg jàpp nañ ne moom dana ko fa yóbbu wala dana ca def la nga xam ne nii moom moo di wàllam mel ni ki nag bang bang ba mu toogoon moom muy CRC bu Kaolack jiite woon ko daa mel nag pap ka nga xam ne moom mooy pap sàmbali daa mel ni moom mu nga xëy di wax daal jàpp na ne daal fi mu nekk nii ñu ngay xool ay yoon ak gouverneur ba boo xam ne fa la ñuy jaar ngir mën a remplacer ki nga xam ne moom moo di Bira Sène keneen jël toogam ba toog ca keneen koo xam ne nii moom toog na ba pare wala mu toog ba jël combat muy Gambien bu bul faale Gambien nag moom génn ga nga xam ne nii moom la ko def moom la def fan yi ñu gis ko mu wax yëglikaay bi di sunu lamb ñëwaat na ci mel ni ki nag Gambien moom la muy xamle wala la muy leeral daal nee na leer ñëpp man Gambien wéer samay mbir itam fu leer naññ la ci ne mën naa daan sax ku dul assurance kon jàpp na ne moom nekkul koo xam ne ni ku koy jaaxal la moom assurance moom gambien daal gis-gis boobu la amee ki mbir mu mel ni kii noonu jàpp na ne kii di gambien daal wala boog kii di assurance daal nekkul mbër moo xam ne mu koy jaaxal la ba tey bu ñu continuer bu ñu demee fa nga xam ne nii moom moo di ca record record nag moom la mu ñu xëy xamal tey wala la mu xëy dig tey jàngatal ñu ko maanaam daal atu retraite atu retraite bi nga xam ne mbër yi dañ koy def muy toll ci 45 ans mel ni que nag ñu ko mu mel ne am na ay xam ne daal d'accorduñ ci mbir moom nga moom la ñuy wax maanaam yokku ko am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne risque mu nga ca ña ca des tamit jàpp nañ ne lool warta mën a ne ndax jàpp nañ ne ba sax boo fa demee daa mel ni ñoom seen atu retraite ñu ngi ko fixé si 40 ans maanaam boo amee ñeen fukki ko mën a bi di record a ñu lu mel ni ki noonu ba tey record tey séq na waxtaan ak Boy Niang wala boog Boy Niang am na lu mu fa wax Boy Niang bu déggul daal la mu ki nga xam ne mooy ministre Matar Ba ginnaaw bi mu tànnee ñi nga xam ne ni jàpp na ne ñoo war a doxal làmb ji Boy Niang nag la mu gis mooy daal li des léegi ñu maanaam accompagner leen gunge leen ngir ñoom lañ leen dénk muy objectif ñu mën koo atteindre maanaam def la nga xam ne ni moom la ñuy xaar ci ñoom nee na loolu nag la koy indi du leen lu dul jàppale leen ñeneen ñoo xam ne ni moom wala boog waa Adrien Senghor dem boo léew doo boo demee ci Leewtoo bii daaw au moins tëgg nañ lu toll ci ñeenti journée maanaam la daaw lamb ji octobre la ubbi woon te fii nu koy waxee nii moom soo bëggee dégg dëgg tëgg amagul lamb ubbeegul ci ñu ngi ci mois de novembre maanaam boo bëggee dégg dëgg kon perte nañ lu tolloogun ci ñeenti journée boo ko méngalee ak at mi nga xam ne moom la génne muy daaw ba tey duñ fa sori bu Adrien Senghor googa daa mel ni nag ab conférence de presse dana fa am la ko waral nag mooy dëgg xëccoom dat ndax dana war a mën a am wala du war a mën a am li am ba des daal ku ci ne yaakaar naa ne la nga war a am xam nga ko te itam ku ne sa combat heure mu taxawoon xam nga ko te yaakaar naa ne foofu coow waru faa mën a am laa foog ndax nag am na nañu amoon daawi combat am nañu taxawal ren te defe naa gaa yi fi ne di ay bees yaakaar naa mbir mi dinañ ko war a mën a teg ci aw yoon ba ku ci ne nar ba nga yool ñu sédd la ko te bat bant du dam dara du yëngutu yàgg asalaamaaleykum wa rahmatulah mbekk internet Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziarati di leen ñaanal di di ko sàkkuuti ci yéen tey nag ñu ngi ci alxames 12 novembre 2020 waaw ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñëpp jàmm di balu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu mucc gu ànd ak xéewal defal ñu wér gi yaram te xiir ñu si boppam yàlla na ko yàlla def barke yonent bi sallallahu alayhi waa di ñëw nag tey ci alxames yi comme ni ngeen ko xamee tombeeg yëglikaay yi moo xam sunu làmb la moo xam record la wala Leewtoo point la bu dee yëglikaay bi nga xam ne nii nag moom moo di sunu làmb la tey dafa ñëw fésal ñu ci xëtam mu njëkk le roi des arènes Modou Lo ancien roi des arènes Balla Gaye numéro 2 ancien roi des arènes Bombardier Siteu Papa ak Ama Baldé lam ci jublu nag jàpp na ne ah saison bi su ubbee nar naa métti ndax li ko waral jàpp na ne xëccoo dat est-ce que du am ndax li tax mooy ku ne xam ne na yu taxawoon mu taxawee am na ci yoo daaw la war koo bëre corona ba ñëw bëreetuñ ko bañ demee ba sa biir ñu bokk dañuy taxawoon daaw Siteu Papa Sow boobu moom demoon nañ ba jàppal ko dat ba waroon koo bëre far corona bu ñëw amatul ka nga xam ne ni moom moo doon tamit ah Modou Lo ak Ama Baldé boobu combat waroon nañ ko bëri mois de juillet yi ñu génn waaye yàlla dogal promoteur ba yàlla def ñu arrêté ko mu génnaat ci loolu ñu koy ñaanal yàlla yàlla bu ko loolu arrivé ak bépp doomu aadama waaye corona ba tamit ñëw ak yeneen combat xam ne waroon naa am ndax ku ne ngi rappelé wu diggante soq ak gàmmu géey ba ne suba la ñuy bëre defe naa la corona ba ñëw ñu arrêté lépp luy ëpp yëngu-yëngu kab daje mel ni kon nag defe naa foofu coow waru fa mën a am pour man sama gis-gis parce que li tax mooy bu fekkente ne dañu ubbi làmb ji CNC ubbi ko wu teg mbir yi ci aw yoon ña nga xam ne daaw amoon nañu ay journée ba jàpp ay dat wala ñu taxawaloon ay combat bu war a tëgg defe naa buñ ko tegeelee noonu rek yaa ngi dégg ah bu rang ba jubee defe naa ne ku ci ne xam dinañ xam yow heure bi nga war a tëgg ak la nga moom ñu jox la ko te bu keroogee pour man problème du am waaw parce que itam lii lii indi problème daal mooy fekk yëfi jàmbur yu mu moom nga jël ko jox koo xam ne du ay yëfam maanaam jox nit ki lu mu mérito loola lu mu moomul loolu moom mën naa indi xol yu tàng ak ab jaxasoo te yaakaar naa ak ñii nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw bees foogu mu ne lool dinañ ko nangu lama ma yaakaar daal mooy mbir yi nañ ko teg ci yoon ku ci ne dat ba nga war a tëgg ñu xam ko xam ne lii mooy yoon jox la ko pour man su ko régee coow du am ba tey tamit jàpp na ne décentralisé ndax warata mën a am ngir ñu décanté situation ba tey waa loolu mën na ne c'est possible la waaw bu fekkente ne yenn combat yi Eh, tamit est-ce que raison yi àttan nañ ko ndax tey boo ne maa Siteu ak Papa Sow ndax raison yi àttan nañ ko wala nga ne ma Ama Baldé Modou Lô est-ce raison yi àttan nañ ko wala Boy Niang Tapha duma ko foog wala Bombardier Balla Gaye am na combat xam ne wax dëgg yàlla soo bëggee dégg dëgg rek Léopold Senghor la xaj wala arène nationale mbaa Demba Diop yaa ngi dégg xëy na am na yeneen combat yoo xam ne nag d'accord mën na waaye loolu tamit bu ko rogee la muy laaj ci wàllum accompagnement ci promoteur baak yooyu yaakaar naa dina nekk loo xam ne ni lu metti lay doon parce que tamit ku xam ne ku xam ne que maanaam tey ku bëgg a jëlee làmb fi yóbbu ko feneen te programmé woon ko ak la muy laaj ci dépense yooyu dina indiwaat yéen kon daal li am solo mooy nañu waxtaan rek ba teg mbir yi ci aw yoon ku ne la nga moom ñu jox la ko su ko defee ñu continuer liggéey bi ba tey bu ñu continuer kii mbër la moo xam ne defe naa na ko Sénégal ci sa équipe nationale ak drapeau chef de yu mel ni ki doon muy pakala bu mbuur xëy na nag di wax ay adversaire yu mu war a bëreel muy Malick Niang bu Yoff ama neex bu Tëngéej Moussa bu Yarax mel ni kon loolu la xëy cible comme ay adversaire mel ni ki ñooñ nag defe naa ku ci ne valable nga pour bëre ak pakala parce que nag lu mu def la ci làmb nekk na mbër moo xam ne mu mën a bëre la mu néew ay defet te itam xam nañ ko bu baax a baax ci lutte avec frappe lutte simple moom defe naa waxatuñ ko defe naa at yëpp gis nañ ko mu wàccaat di ko di ko ñàkkante di ci gagné ay tournoi muy mbër moo xam ne adversaire yooyu mu dëkk nag wala yooyu mu jàpp ne adversaire la mu defe naa ne lu ñu war a bàyyi xel la xalifa ñaabu tay si nga moom la mu jàpp mooy ñi ñu tànn est ce ñoom la ñu war a tànn est ce que ñooy ñi ñu waroon a jox làmb ah loolu ba tey gis-gisam nit ki moom sa gis-gis am nga droit joxe ko waaye man li ma siy wax rek mooy comme tànn nañ leen ba pare ah ci des mooy fi mu nekk nii liggéey la Youssou Ndour waxoon rek gàddu ulleeri jublu ci mbay mi xamuñu ñoom baax nañ xamuñu baaxuñu waaye l'essentiel que doyloo nañ leen ba tànn leen ñoo fi ne war a doxal fii ak ñaari at nañ leen jàppale ñun ñëpp rek ku ne dugal ci sa loxo bu ko defee pour man mbiri avancé ñu jëm sa kanam parce loolu rek moo fi desati leneen nekku fi bu ñu gisee tam lu ñu war a critiquer ñu critiquer ko mais ci kaw teg ko ci lu objectif loo xam ne njariñ kese lay doon mais bañ a nekk loo xam ne nii entre personne ak personne lay doon quoi parce waaw contre naa yàgg maar rek moo jiite làmb ji du du du du maanaam du dem parce que dama ko contre ni entre nous non loolu du du même bu ma contre bu ma amee yàgg problème te moom ñu teg ko fi te mu leer na ma lañ ko jox mën na ko te mu ngi koy doxal su ko rogee naa am mat gu toll nekk humilité bu toll nii nag apprécier la muy def loolu pour man mooy li gën a jaadu Khalifa ñaa nag voie autorisée la ci lamb parce que moom mooy président Tay Shinger te bu ñu ne Tay Shinger xel day dem ci ak yeneen mbër yoo xam ne ñu nga ci biir écrit ba ba tey mbër yi ñu ngay wax tamit ñu ngay wax seen ay doléance ña nga xam ne ñooy CNG bu bees bi maanaam bureau bu bees bi kon daal ñoom it nañ bàyyi xel bu baax a baax di déglu léeg nit ñi di wax rek nañuy wax ak nit ñi di déglu acteuru làmb loolu dafay am solo moo xam mbër ma manaat ba supporter ba amateur ba képp ku ci bokk rek nañ lay déglu bu ko defee mbir ya dana gën a jaar ci yoon Gambien moom que mu xëy di waxal wala la mu xëy di leeral daal mooy digganteem ak assurance la jàpp ne moom moo di assurance ma ne waaw loolu moom defe naa loolu mooy li wax xel war a mën a nangu parce que li tax nga nangoo jël avance ba war a bëreek moom ba def face à ak moom yaakaar naa kon am ngay argument tey te mbër nga ci làmb ji nga bokk assurance papa Sidi di suñu xarit dëkki dëppi ci Thiès moom nga xam ne moo tëgg boobu combat Pape Samba li moom la mu xëy di xam ne daal mooy seesu bira ba nga xam ne moom la jiite woon ca Kaolack hmm? jàpp nañ a lañ ko dénk dana ko doxal ñoom loolu lañ jàpp waaw waa Kaolack loolu lañ jàpp waaw defe naa ah ñaan mu doxal ko rek du Kaolack du Bawal du Louga du du feneen nañ ñaan rek mu doxal ko pour lamb mën avancer ñun loolu la ñuy ñaan bu ñu demee record atu retraite bi ñu war a bi ñu wax naan dañ koy bu 48 ans ci 45 ans la nekkoon am na ñoo xam ne ay médecin lañ wala ay kii yoo xam ne nii d'accorduñ ci ay technicien ah mu mel ni ki nag man daal li ma xam mooy sport moom boo ci nekkee di ci nekk ba am 45 ans man Babacar dama gëm ne loo ci deful woon jàpp ma ne doote nga ko ci defati parce que nag surtout sport individuel xam nga dafa bëree dafa metti géew ba amut ak wàllu bokkul ak football nga xam ne des fois sax mën ngaa sonn xaw a taxaw tuuti yu mel ni ki noonu am na ñoo xam ne nag mën nañoo dem dinañ ñëw ba 45 ans ñu ne waruñoo bàyyi li ko waral mooy hygiène de la ñu am sportif bu amee hygiène de vie fa muy retraité sax dañuy jàpp a bàyyi xam nga ñëpp dañu warut bàyyi ndax ka mu bëreel ca kaw la muy bàyyi jël ba mu ko daan ci koo xam ne yaa ko mag ci at jëkk ko ci làmb ñëpp dañu xalaatoon ne loolu mënta ne mu def ko na mu ko def kere ba ne war na amaat combat far ñu ne 45 ans mat na mënatul bëre loolu li koy waral nag li koy may sportif mu nga am hygiène de vie am na ci ñoo xam ne nag ah ni Babacar mi la ñu mel ñoom bala ñoo am 30 ans sax sam waay sport baa leen di bàyyi parce que xëy na hygiène de vie ba du fa nekk te loolu bu amulee moom ak sportif boo mën a doon dégg naa ku mel ni Samuel Eto'o mu wax ko ci Ronaldinho nga ne na eh, ak lu mën a xew dàq la football ci àddina bi mais boo dul entraîné te sérieux itam fa ngay mujj rek mooy da ngay noppalu ji parce que sport la mu laaj moo bëri àddina sax moo mel noonu maanaam lépp looy def lu mu mën a doon day laaj hygiène teg ko ci aw yoon boo ko tegee ci siraatal mustaqim rek yàlla wan la ci aw yoon loolu moom suñu borom ko wax du dañ bu ñu continuer ba tey ñëw ci ka nga xam ne ni moom mooy Boy Niang jàpp na ne moom ci record nañu jàppale kii bu bees bi fi ne loolu mooy li war a am jàppale leen parce que teg nañ leen fi kon nañ ren Adrien Senghor heure bi daaw novembre am nañ 4 journée ren amaguñu benn a ah, mu mel ni kon per nañu ay journée parce que daaw octobre la lamb ji ubbi woon waaye nag jaam pexem yàllaa ki dogalam yàlla indi corona corona boobu tëj lépp ba tax tey li ñu war a def yëpp yëpp ci sport wala daje mën a géesu koo def moo tax lamb ji xam naa ubbi octobre mais xëy na d'ici décembre wala janvier dana ubbi pour ñu mën a continuer suñu ay compétition ba tey ñoom itam tey danañ daje ñoom amateur ya ne war a am lu ñu waxtaane ba tey comme li may wax rek ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi dafa naa kon nañ leen déglu ngoon ak seen conférence de presse boobu loolu ba tey mu ngi ci Leewtoo point net waaye di wax ka ni daal ñi ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm def ko ci àddina bi corona bi jeex tàkk xam nga di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre foo mën a ne si àddina bi di nuyu waa Leewtoo yëpp rawatina directeur général Pape Thialis Faye di ko nuyu di ko fi nekk yëpp rawatina tonton Diaw borom ADN le futur maire de Sasalem maa ngi yàlla xam nga tonton jaw yàlla na nga nekk meeru HLM waaye loolu laa lay ñaanal di nuyu sama xarit ba ca Espagne nag l'international Youssou Ndoye du ma ko fàtte kooku sama doomu ndey la ak Saliou Ciss mi nga xam ne mooy latéral gauche équipe nationale mais di féliciter Lions yi ak lu mën a xew yàgg maar mooy gagné nañu football moom la ci am solo mooy nga gagné on se newoon ci équipe terrain bi te ku ne xam ne ne Lat Dior Guèye nekkul bokkul ak stade euh, bële Edouard Mendy di footballé ca Angleterre duñu sax benn kon boo fa ñëwee nag ak naaj wu tàng wu nga négocier ba gagné fa 2-0 defe naa lu ñu mën def lu ne la jaaraama kon Aliou Cissé ak say Lions jaaraama yàlla na ngeen dem dimanche Guinée Bissau gagné mën a qualifier Coupe d'Afrique loolu lañ leen di ñaanal la ah. yàgg maar